may faral di teg natt seet leen ma ci ñooñu yii mu may teg nii day tax ma xam ne yàllaa ngi may bàyyi xel parce que nag waykat yi bari nañu trop mais bu ma fi nekkee yàlla di ma teg ay natt damay xam ne nekk suñu borom mi ngi may bàyyi xel mm-hmm. waaw tey suñu borom du liggéey loo mukk ko mu bugg fay bu ma tegee nattu rek am na lu may dencal ci kanam te man xale bu ndaw laa commencé guma sax donc ci 2023 bi maa ngi ci ñaanal yàlla képp ku fi nekkoon te nekkatoo fi yàlla xaare laa àjjana ñi nga xam ni euh, ay célibataire lañ commençant ci man suñu borom may ma soxna bu baax nag mm. boo xam nag jot na mu ñëw toog sama sëyal ma ñu am njaboot ju barkeel te mu nekk nag soxna ju gën ci man soxna boo xam ne day nekk yaay bu ñëwee day nekk yaay day nekk xarit day nekk soxna boo xam ne dina ma mën a uuf uufal ma sama njaboot uufal ma samay xarit ak samay musicien samay lépp daa metti na nag mais yàlla na ma ko suñu borom jox mm. ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw aussi yàlla génne leen ñu delluwaat seen kër maa ngi leen di bikëp ndax dañu may bége ak ñi nga xam ne ñoo ne ci hôpitaux yi suñu borom yëkkati leen xaalifa généraux yëpp maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér sama soppe yi nga xam ne ñoo ma bëgg yàlla bàyyi ma ak ñoom ndax xam naa ne am na ay soppe trop na fi mm-hmm. waa ci coow lii dama ci xam ne am naa ay soppe da gis ku génn sax di ma défendre te xaw ma ko mm-hmm. dangay gis nit def ma vocal di jooy yaakaar ni maa ngi ci gudd yu bët setagul mm-hmm. fekk man yàlla daa dogal ku ku gëm yàlla laa ba pare yaakaar ko man lu ñëw rek na fi dama naan ndogalu yàlla la mm-hmm. moo tax yu bari duma kii lu ñëw rek wallahi azim dama naan lii de ndogalu yàlla la ak lu mu métti metti métti ma waxtaan ak sama yaay mu dalal ma dama lii ndogalu yàlla rek jeex na parce mm-hmm. mooy sama sëriñ bu ne ñaanal naa la yii yëpp ay yàlla mm-hmm. na nga ko nangu jóg te bu ma la dégg nga wax ci mooy sama kilifa moo tax coow loo gisee doo ci dégg ma wax ci damay noppi continuer sama yoon 2023 bi nag may ñaan Euh, nii mu débuté nii yàlla na fi yem ndax gis nañ accident yi nga xam ne moo fi am récemment donc may jaale waale ñooñu seen ay famille ak bi am bërki démb côté Louga donc yàlla na yàlla def mu yem fi ah famille yi mu dal aussi maa ngi bokk ak ñoom en tant que porteur de voix maa ngi bokk ak ñoom naqar wi di leen jaale seen njaboot di leen jaale ndax na ñàq nañ nag hmm. moo tax àdduna damay ñëwaat tuuti balaa ñuy tëj booy dund yenn naqar yi ba gis yenn naqar da nga xam ne amoo naqar mhm. xam nga tey ji naqar yi fii di kii dem na mise nga gis koo xam ni nga gis benn accident waaw nga gis ko ci ñàkk famille yëpp man war naa jooy parce mhm. la vérité na fi mhm. ci même sama coow la loolu amee nga gis cinquante quatre morts ci benn bis kon man bu ma génnee jooy rek man gëw ma yàlla ki nga xam ne daa am doomam yar ko ba mu màgg ba ne ci yoonu tekki nga xëy ñu ne la dee na nga gis ku yor liiram uuf liiram ci accident bi ah téye liiram ba dee ëmb ko juróom-ñeenti weer wëssin ko hôpital def ak moom choc xam nga gis ko nii tiim sa doom protéger ko xolanday ni man ba dee xam nga kooku boo gisee naqar yooyu nga gis yooyu méttit yooyu man damay fàtte samay méttit damay xam ne ndekete man lii ma dal mm. non ay affaire yu ndaw la ci nguuru yàlla gi lii du méttit mm. yàlla moo ma ko teg juste pour gën ma yëkkati mm. donc famille yooyu yëpp maa ngi leen di jaale seeni doom di leen wax ne maa ngi bokk ak ñoom méttit bi di wax nag nañu ma xaar bientôt ma génne sama album ci 2023 bi. Mm-hmm. album yi fi jaar nag ci 2022 bi neex na. Mm-hmm. gis naa sama frère Pape Diouf non non kiiwee album yi déglu ah. nga leen. parce que déglu naa Wally génne na Pape génne na on a vu d'autres artistes aussi. déglu naa euh, ak Jiba. Jiba aussi déglu naa bu Jiba. Euh, moom maa ngi am occasion déglu ko ci vol bi bi may dem déglu naa bu Jiba déglu naa bu Pape Diouf déglu naa bu Waly vraiment ñett yëpp neex na te dundalaat nañu musigu musigu Sénégal yàlla na yàlla defal leen jàmm wéral baat yi Sidi Diop aussi mi ngi waajal albumum ci 2023 bi incha allah Sidi sa digganteeg xale yu jigéen du ma tëj quand même te du la ko laaj parce que xale yi gis naa ne ci euh, plateforme <laughs> compliqué wu fi noo wax ba li ma la bëgg a laaj du ma Euh, xale yi daal ñuy xeexoo xuloo sii di lii jàppal sii di lii loola dangay gis kenn ku def. benn yow mosoo may benn gerte. da ngay gis kenn ku def benn man man may naa la ku ne maa ko def man bu rëy bu rëyee man la bu tuutee dañu ko ji. mais mooy sa diggante ak ak jigéen ñi tey sii di. dégg naa xale yëpp ngay génnal te kenn yëgut ci ne yaa ngi ak sa morom. fi loo Sidi yaa ngi ak xale yëpp. bu leen ci bàyyi xel. xale yëpp say gel lañ. nga ko noonu la. léegi sa diggante ak xale yi. xale yi jigéen ñi la. Ah. ay gel lañ ay fans lañ ay jabar lañ ay eh. ay maîtresse lañ. waaw ana yow ana ana ana boy ngi fi. ah mi ngi fi di gën a mool. nga ni ma nga bëgg ma delloo leen wala. <laughs> <laughs> ah comme ñaaw na ba noppi jékki. <laughs> incha allah Sidi loo ma jox ma wecc la ko jël beaucoup de pièces. Eh, yàlla dafa dogal sa jëkkër dafa baax. waaw man maa baaxul moom moo baax dafa baax ma rus ko lool nag. Mm-hmm. Malcom waaw donc kon. mais tontoogoo laaj bi sa digganteeg xale yi lan la. sa digganteeg xale yi lan la mooy waxee lan. xale yu jigéen ñi. est-ce que mën nga mën nga mais mais yàlla man yàlla yàlla dafa dogal xale yu jigéen ñi Sénégal aw ma seen fay. dañu maa bëgg. te ma raw leen loolu. boo gisee lu tax boo ñëwee sama soirée fekk leen ñu fees fa dell ah Mor sa mbëggeel yi may wëy daf leen di touché daf leen neex ba pare may xarit lañu sumay soppe lañu ma bëgg leen trop parce que nag suma carrière moom boo ci génnee loxo xale yi jigéen ñi dara desatu ci. Hmm. fii lu fi avancé lislaam sax jigéen moo ci njëkk dugg. Hmm. kon jigéen lu mu bokkul baaxul. ñoom ñoo jàpp ci carrière bi ba mu yegg fii góor yàlla yu fi jàpp nañ ci mais jigéen ñi dañ ci jàpp formé ay fan sa club gunge ma de Tivaouane Guédiawaye ba fi ma yegg fi donc aw seen fay samay xarit lañ leneen loo ci bëgg a teg nag yow mii yaa ci bëgg dugal. Mm-hmm. mais xam nga ni man ak ñoom dañoo bëggante tey bëggante la. Mm-hmm. bëgg dañu maa bëgg ma bëgg leen ñu may baal si di ma dooleel. Mm-hmm. leneen loo ci bëgg a xaj xajal. Nafi <laughs> yaa ko ci bëgg a dugal. ok na. <laughs> am nga sa vie privée na pat ak moom. Mm. nekk ci sa biir say. dudd public na rek. déedéet yaa ngi ci public na. waaw waaw mais yaa ngi ci sa néegu wax dëgg neex yàlla na yàlla na yokk. Mm. te barkeel am ci njaboot ju barkeel yaa ngi ci. Mm. ñaanal ma nag te bàyyi yi nga may wax nii ne ma. yàlla na yàlla na yàlla nga am njaboot waaye mënoo njëkkee fii. ne ma yàlla nga am soxna su mel ni man baax. toog ci sama wetu jëkkër. waaw nga bëgg fee nekk naa mën a diggante. yàlla baax na turam commencé en c'est important en comme nag Aïcha ba tey mën nañu mën nañu daanaka li ci des euh, baxeetul euh, tonton Papis mais euh, bi ma annoncé ni yow laay. oh dafa am ma oh. bind message ne ma Nafi diggante Sidi ak Omaro daf ma naqari. Hmm. ma bëggoon bés bu ngeen invité Sidi ngeen laajal ma ko. waaw. quest diggante bi rataxaat. wala bu doon wax un mot sur Omaro lay doon. wax naa ko wax naa ko waxati ko wax naa ko confrontation wax naa ko si five site internet yi war nañu ma wax ko Omaro sama mag la wax dëgg yàlla du ma wax ci moom mukk lu ñaaw barki borom Tuubaa kooku du man man képp kuy xaar ma yëkkati kàddu wax ci nit lu ñaaw boo fa nooree di fa nawet ndax sama làmmiñ bi ci kàttan suñu borom du génne mukk lu ñaaw Omaro nit bu baax la njuum nag day am ci àdduna Youssou Ndour wéy na ko njuum te du wees ku ne day juum mm-hmm. mais sama mag ju baax la est-ce que jéem toog maa ngi réeroo noonu amuñu problème amuñu problème bu ñu rombantee ñi ngi nuyoonte bu ñu rombantee ñi ngi béggante jabar sax ni sëy dagane noonu la tas dagane mm-hmm. waaye waxuñu leen nag bu ngeen tasee ba pare ngeen ñaawoo mën ngeen tas nekk ci jàmm foo ko romb nuyu ko fu mu la romb nuyu ko ñu ngi ci loolu. mais wax dëgg neex yàlla euh, duma ko mos a wax lu ñaaw ndax man bokkuma ci nit yoo xam ni dañu naan diw baax na ba ëllëg ñu ne daa bon kooku du man. baax na laa mos a wax ci moom devant les écrans ba keroog may sàngoo suuf yàlla na yéex baax na rek la Sénégalais di dégg ci Omaro. Mm-hmm. waaw lu ma def baal naa ko ngir jëmmi Serigne Saliou lu may waaj a defaat baal naa ko. waaye nit ku baax la mhm. loolu képp la sénégal yi dégg sama gémme mhm. yàlla na am jàmm mhm. te yoon wi mu jëlit suñu borom defal ko ci tawféex waaw